pas Aliou modèle la su fierté la si wa Jamalaay si wa Ndakaaru ak si Sénégal donc motax ñu nekk ci yëngutu yi pour xol lepp lu ñu mëna def comme mom ci terrain ba lay xeex ñun suñu terrain commencé na ñun 72 heures dinañ ko dinañ ko jouer avant pendant et après le match loolu mooy suñu en tant que supporter douzième gaynde lañ nous sommes derrière lui euh diko ñaanal diko féliciter di féliciter équipe nationale du Sénégal yépp parce que l'équipe nationale n'est pas comme moi, du Jamalay, du fuut du euh, Sénégal yëpp euh, euh équipe nationale. donc bu euh, c'est une première dans l'histoire du pays parce que avant 2002 lañu lañ la Coupe d'Afrique. Rennes ren eu la chance vraiment aller plus loin que possible Nous avons dañ si jàpp dañ si jàpp di confiance ak sunu fierté c'est Pape à Ndiaye ASC Jàppoo de Jamalaay mi ngi nii di organiser mi ngi wut ay banderole yu muy taf les jeunes du quartier ñi ngi nii ñoom ñoo jël seen initiative bu bopp et il faut les féliciter parce que surtout loolu benn benn exemple de citoyenneté la des jeunes organisés wu xaar ñu kenn lenn ci kenn jël seen poosu bopp cotiser jënd seen i drapeau gis ngeen koñ bi nu mu taaroo nii ñun ASC bi tam am na taxawaay bu ñuy def wut ay banderole yoo xam ne dina visible ba xam ni quartier bi mooy quartier pap Alioune Ndiaye waaw ñu ngi leen di gërëm di ñaan Sénégal am ndam ndam lu leer nañ ndam lu ñu jik réew mi jaaree fa gën a jëm ci kanam xale gën a am confiance gën a gëm seen bopp gën a gëm seen réew wasalaam. ñi ngi waajal li nga xamante ni bi juddoo ba tey gëj nañ koo def muy finalu coupe waaw di ñaan yàlla nag suba ci vendredi bi bu ñu jullee ba pare ah ba ñëpp añ ba suur naan lu sedd bu jàkkaarloo télé yi Sénégal ci ndam sedd ñu jël coupe bi ko fii ci Sénégal. amiin gaay waa ñoom ñoo njëkk a ñëw. waa kër Pape Aline Ndiaye ñoo njëkk a ñëw waaw ñëw nañ Pape Aline dafa mañ fa waaye waa dem ci fekk Tour Afrique ba mais ñii nga gis ñëpp ay waa kër Pape Aline lan xale yi yëpp Pape Aline bu ñu wala ñu iñaan wala seen xol am jaloux duñ def lii mais dañoo génne seen xaalis seen poos boo rek li Pape Aline joxe bu leen neexoon dana nañ xaar Pape Aline mais ñoom ñoo ne Pape Aline téel sa loxo ñu def ndax ñun yow la ñu am yow la ñu sagoo yow la ñu tiitaroo loolu dafa rafet Pape Aline li ñu koy dénk suba li koy denk suba ñun waa jàmmalaay moom xam na ko maillot bi mu sol yombul bari na jour yu bari yun yóbbu solu soluñu maillot bi ñu ngi ci banc bi match bi commencé ba tey ñu ngi ci banc bi te ñoom dañoo mën a fubal waaye moom la def pour mu fubal comme nag képp ku sol maillot suba nga nekk sénégalais Cheikh Mbacke Bouali Balago Seck mooy wax ak yow ngeen xam ne dafa am ñu leen di xaar fi sëriñ si fi dëkk ñëpp biñu demee ak tubaab bi dañ leen a gañ ñëwaat barke sëriñ Touba kon dama bëgg suba naar dafa xees rek wane leen seen ngor wane seen jom wane seen fulla sénégalais jom ak fulla fu mu ko wane day am ndam ndax ñun nag danoo am jom ndax mag ñi dëkk ci réew mi danoo am jom ba bu bal bi dawee topp leen bal bi te ku ci téye bal nga xam ne seen waa kër lay seetaan sa waa koñ ñu ngi lay seetaan Sénégal ñu ngi lay seetaan président bi ngi lay seetaan waaw xam nga ba ci la mbëru damay dégg ñu naan allez boo gis am na retour man damay dégg ci mbëru lamb yi ñu koy wax naan boo ma daanee allez retour allez retour bi duma doo ma daan Sénégal ñoo la gën a xam loolu ndax nag dama lay wax ne la fu Pape Aline Ndiaye nekk Idrissa Gana Gueye Sadio Mané ah Mbaye Diagne Mbaye Niang waaw non yooyu jour fu nu ne du toj àddina bi war nañoo xool Algérie moo ñooñu mën ñu dóor waaye 1-0 yooyu seen rabax-rabax ak bu ñu leen gaañee ñuy tëb di na ak arbitre bi ragal leen mais sénégalais fagaru nañ pare nañ te bu subaa dinañ wan sénégalais yi ñoom ne ay vrais lions lañ xam nga senegal confiance dafa yàgg ci ñun confiance dafa yàgg ci ñun yow mi ma posé question bi da ngaa am confiance ndax bi nga yeewoo da nga def jiin bu rafet def daal luy rafet takk ay verre ànd ak sa xarit di ñu civilisé te loolu ko bu ngeen civilisé bu ngeen yaakaarutoon confiance ay caaya ngeen di sol ak sol i tànk weex waaye si ngeen civilisé ak xam ne suba ndam dina ñëw moo tax confiance yàgg na ci ñun Sénégal yàgg yàgg ndam yàgg kii na ci yàgg confiance yàgg na ci ñun confiance nag mooy yóbbu nit foo fi nga bëgg ak gëm sa bopp sénégalais yi gëm nañ seen bopp xam nañ ñooy ñan loolu mu ñu dooroon ca ca ale ba loolu loolu cat buy génn bu suba Algérie suba la ñuy comprendre man da doon maa ngi jégalu ñëpp Sénégal yëpp si décès Tanor bi parce que Tanor ñaanal nañu jël coupe bi mais li dafa neex li dafa rafet 2002 ba léegi kenn jëlu waa Alioune Ndiaye sama rakk la da doon samay daal mooy football su ma gisee mooy wax si télé bi nii xolam day neex koñ bee ngi nii papa mooy Mor Ndiaye magam mooy Ali Ngoulé ñoom bisu ñoom ñëpp kontaan naa ci moom waaw parce que lii 2002 la fi gëj xale yi ngi nii lii musu fi am bu fi amee tey Pape Alioune Ndiaye moo tax te ñun ñaan nañ yàlla coupe bi ñëw après ñu daaneel ko kaamin bi suba nañ ko wàccee waaw saraxal laay sarax lépp mais yàlla nañu yàlla may nam ne leen amin waaw Pape Alioune Ndiaye yaa ñuy dégg Pape Alioune Ndiaye xale yi kontaan nañ si yow Pape xam na ni man magam laa Pape bu ma gisee mooy si télé bi Pape xolam day sedd parce que Pape daf ma liggéeyal Pape du lekk bàyyi ma indi na ma Cheikh in na ma ñëpp xam na man maay kan fii man maa njëkk a dugal bii si koñ bi am na benn booy bu nekk sama ginnaaw moom ma donn nawetaan bi passé la ñëw dab si ma paa Pape Abdou Ndiaye sama pap la mu neex mu naxari magam rakam papam yaayam bëgg ma